ak xeexam boo Niang man foofu laay waxe waaw sóor naa ko ba ma ne yow yow mi suma papa suma nijaay maa lay nuyu yow boo xamee tafaatin man mi nekk ci làmb ji. doon ah. mbër maa ko gën a xam. dëgg na donc xam naa tafaatin bu baax xam naa ne day xeex xam naa ne day bëri. Ah. waaye comme li ma wax rek làmb dama ci am vision. ok mooy la bëgg a dem. Ah. nekkul teggi moo ma koy may. ok wala moytu kenn moo ma koy may. dama war a bëree ñëpp. maanaam ay risque waa mais ñi tàng ci làmb. ñu saf ci làmb. ok dama bëgg a bëri ak ñoom. ok ma wane fa li may wane dem ci leneen. pourtant loolu def nga ko sa ak sa ay morom. waa léegi sama morom bu jeexee nag samay mag a des. léegi samay mag nag ku ci tàng ku ci sedd ku ci am grâce ak ku ci tàng yëpp sama yoon newu ci. ma man li ma gëm mooy xale laa bëgg naa affaire bi gëm naa ko te métier bi jàng naa ko mën naa ko te am ñu nekk suma ginnaaw di ma jàppale di ma dooleel donc amul kenn koo xamante ni war ma mën a bëree yow war ma daan war ma ak koo mën a doon ci làmb mm. ci gëm-gëm l'essentiel li am solo mooy ma li ma war ma ne ci mooy liggéey gàttal sama tànk toog suma kër nekkal suma instant ak sumay waajur ñu may ñaanal ma nekk entraîné bu bis jotee man ak samay mbokk dem suñu borom nag mooy may ndam waaye ku xam boo ñaar ci géew ba dinaa def fulla dinaa def fay dinaa def jom promoteur bi li ma fay dama koy delloo damay damay fees stade bi dell damay ñëw tout ça bëggal yi te bu géew ba ma def fulla ak fay ak jom te loolu la ma ñëpp xamee te du ma denc loolu mm. lu maanaam fàcceel taxawal fàcceel taxawal mu dem nanu xool man la demuma de demuma de dama naan mbër du maas ak dabe la rek. waaw kay nanu nanu pelloo sama gaañ ñu jox léegi pël bu rafet moom itam mu sam bañ laajam ma jox ma laaj. yaa yaa maa ngi ñëw ana pël bu rafet. li mooy yaatal. waaw pël bu rafet la ñuy jox. je suis très d' accord raatal raatal non yaatal d' accord naa si yaatal waaw d' accord naa pël bu rafet la taxaw jugal taxaw. da ngaa rafet. waaw pël bu rafet tabarkal. yaa ngoog boo ñaaw ngoog. pël bu ñaaw. jugal asalaamaaleykum. maa ngi nuyu saal bi yëpp di nuyu booy ñaa le grand champion sama question nag ci yow laa koy posé puisque sa naataango nekk fi boo ñaa nga nekk champion nekk ndaanaan nga pourvu nga jël tafaatin mi fi ñëpp bàyyi ñu ne déetawaay nga jël doomu Double Less ji Balla Gaye boo ñaa est-ce que du risque ci carrière bi en plus ñu gis ne bi ngay euh, waajal la dëgër de da génn Sénégal mais ñu gis ne boobu léegi yaa ngi toog génnoo pour liggéey toogaay bi lan la en plus risque bi du risque ci carrière bi ñaari avance yi nga jël. jërëjëf Pikine Pël du rab du risque. du man xale laa rek. waaw xale laa rek dama nekk ci làmb. le fait que mënoon naa bëreeg Balla Gaye mënoon naa bëreeg Tapha Tine ba pare sama combat Balla Gaye taxaw. Mhm. sama combat Balla Gaye nit ñi bëgg combat bi ak Sénégalais yi amul bu ñu am ci combat bi moo tax sax combat bi ñëw fekk suñu nekk ci contrat donc Balla Gaye moom mi nga xam ne grand frère la bu demee bay jël carte avance. donc man booy ñaar war naa mën a jël six wala sept. parce xale laa dem ci tool. boobu laa xale laa dem ci tool te bu fekkee mbër da nga war a di compétition lañ wax da nga war a di compétir soo paree ci biir rek deux jours trois jours ngeen ñëw kër ga ñu kafre dama war a demaat ci entraînement yi. parce que yéen tamit bu dimance jotee lundi da ngeen di jug dem seen liggéeykaay comme noonu la. kon loolu suñu métier la amuñu ci benn xel bu ñaar mu def que Balla le fait que Tafa ñoom ñëpp jàpp nañ suñu mag lañ te war nañu bëree ñëpp mais fi mu toll nii. baala moom nga wax dama koy dama koy écho moom dafay xaar. waaw parce que loo xamante ni. tafaatin moo fi ne. ndox da du jéggi pax. waaw man dama am combat bu nekk suma kanam boo xamante ni daf ma ñor ñor yi ma àndal ma xam may ma xam fu a tegu tamit pour am ndam loolu moom ma ñor su ma sañoon sax mën naa fi waxtaan ba jóge dama tudd Balla. Mhm. parce que dama am combat boo xam ne contre bu solo boo xamante ni dama war a liggéey def. fulaak faar ak rek ndox bi suñu borom may ma ndam. donc ci loolu laa nekk maa koy waaj maa ngi ñaan suñu borom may ma ndam. loolu daal moo am solo. Balla moom day xaar moom. ci question pël sax laay rebondir euh, indi ko ci beneen forme mooy l'enjeu combat bi nga xam ne moom nga war a bëre ak tafaatin dafa gën a am lu mu yokk ci sama gis-gis moo di ni tey boo jëlee tafaatin jël avance su Balla